concerne mooy première question bi sur l'amnistie xam nga toog nañ fii depuis des mois. bien sûr les les les les, les cas de monsieur Wade ak les cas de Khalifa Sall euh, war amnistier ñii nee nañ am euh, ça les intéresse d'autres nee na les intéresse pas ñoom dañoo bëgg révision du procès. waaw mais euh, fi ñu toll nii man li ma siy ñaawlu mooy la loi doit être générale et impersonnelle du dëgg. Mm-hmm. bu ñu demee di changer ay loi nag pour les intérêts de deux individus c'est parce que est en de faire non pas un dialogue mais des négociations. maître wax ko ci wolof waaye moo gën. li ma gëm mooy. waaw. loi nga xam ne assemblée nationale moo koy voté warul viser ma Samba wala ma Demba dafa war a wax képp ku dugg ci cadre bi tu bénéficies de la loi mooy da nga ciy jëriñoo wala da nga da ngay tomber la loi mooy yoon day dal sa kaw. amul kii nee na man dama bëgg a bokk naa bokk rek dégg nga ko uh-huh. te xam nga ni yow li ñu la daan wala lu tax li ñu la toppee abstraction faite ñu bàyyi affaire politique uh-huh. c'est des fait mooy ay danga nga def dara uh-huh. moo tax justice saisiru rendre ay décision ba mënatoo nekk candidat mooy mënatoo gérer ay deniers publics mooy xaalisu askan bi nga dellu si nga ni bon nit ñi la dindil loi boobu pour nga mën a nekkaat candidat pour nga mën a gérer waat xaalisu askan bi te fayagoo lu ñu la amande. mooy sur la caisse d'avance mooy ñaari benn kaa bi loolu benn waaw beneen bi aussi am na amende. Mhm. de cent trente milliards cent trente léegi bu ñu amnistie woon les faits mooy su ñu ne woon affaire bi day mel na mosul am. faase nañ ko. te amnistie ay faits. ay ay jëf lay lay laal. du laal ay nit. Mhm. ñu dem donc ñan ñi dugg ci dialogue bi pour uniquement négocier seen affaire ba ñu may leen chance pour ñu mën a bokk. nañu bokk rek président taxaw na fi nii ku bëgg a dem ci élection yi di nga ñëw dialogue loolu tamit xam nga day tey xel mooy boo ñëwul fii doo bokk man maa koy décider xam nga loolu tamit ci démocratie xaw na doy waar. c'est pourquoi bu ñu demee assemblée nationale tey affaire amnistie bi sax bàyyi nañ ko léegi léegi ñun dañuy réviser les articles. L29 L30 L57 et compagnie pour permettre ñenn ñi nañu wuti astuce rek pour ñoom ñaar ñu bokk parce que loi bi c'est pour deux personnes. mais am na ñu ko waxoon ni dialogue bi amul jaru ko na nañu dem directement assemblée kon fi ñu njëkkee fi ñu mujjee nii mënoon nañu fa njëkkee. tout à fait tout à fait mais nag man sur le principe de l'amnistie d'accord ok képp koo xam ne détourné nga xaalisu askan wi mooy lekk nga xaalisu askan wi deniers publics. ñu condamné la si mooy reconnu coupable parce que il faut la présomption d'innocence mën la accuser mais bu ñu demee ba ñuy juger première instance mooy bu ñu nga njëkkee dem tribunal nga def appel ñu yeneen juge bokkul ak premier yi xoolaat affaire bi ne lii lii am na tooñ nga ñu demati ba euh, cour suprême mu confirmer ko je pense que ñooñu bu fekkee loi bi au moment des faits au moment yëfi di xew dafa ne nit ki Euh, mënatoo ji yore xaalis di ko di ko jëfandikoo. mais pourquoi tey ñu toog di négocier pour ñu mën a torpiller loi bi ya jaxat caxat caxate ko pour mën a nekkaat candidat pour lan mais de toute façon peuple bi dafa ñoo ñu ngi xaar ñëpp mën nga mën nga dem assemblée <laughs> par des négociations et non par un dialogue ou bien des négociations sur mesure moom laa ko tuddee ñu dindi la yëf yi mais boo ñëwee devant askan bi daañu la rappeler li nga defan kon li Karim Wade wax. ni révision la bëgg maanaam révision maanaam ñu demaat procès kon dafa bëgg a seetal boppam. tout à fait révision en droit dafa am ay conditions dem négocier ji pour ñu defal la révision mooy pour ñu ubbi ubbiwaat procès bi loolu yomb na le président de la république ci négociation yi également parce que fii président dafa am doole trop yoonam warul nekk sax ci affaire boobu. moom pouvoir exécutif la. naan séparation des pouvoirs. législative nekk fële judiciaire nekk fële ah. moom wa du moom moo war a ubbi procès bi wala di ko autoriser sinon mi ngi jox ay instruction entre guillemets à la justice ana indépendance bi donc tey bu ñu nee négocier nañ benn dañuy ubbi procès bi mais ubbi procès en révision te yow nu mu tudd encore amnistie intéressé wu la peut-être même le L29 yooyu révision war la intéressé yow da nga bëgg ñu réviser sa procès c'est judiciaire c'est pas politique ah. mais révision dafa laaj ay conditions supposons que tey le 20 moo nekkoon datu audience bi nga xam ne moo condamné définitivement monsieur Karim pour ñu réviser audience boobu procès bi mhm. il faut que mu am benn élément nouveau boo xam ni juddu na avant le 20 mhm. pendant le 19 te le 20 juge bi xam ko woon mhm. mais après la ko xam comme lu ci mel ni ñi témoigné woon ñu dem ba ci biir ñu jàpp leen ci ay mbir kon seen témoignage dañ koy xoolaat. exemple wala yu ni mel. ok il faut un élément nouveau. nouveau oui. né avant le jugement. Ouais. mais de euh, nu mu tànn encore euh, euh, trouver retrouver après. moom ka am ele ana élément nouveau bi xam nga réew dafa am ay règles am Union soviétique dañu am seen ay de droit pourquoi ñu duñ ci wax. et pourtant ils font des procès ils font ce qu'il faut. mais mais maître Union soviétique. non non non man je respecte tous les États. non Union soviétique amatul. noonu non quand je dis Union euh, soviétique je parle de les Russes quoi. ok voilà je parle des Russes. nu mu tudd encore euh, ah, dañu am seen ay France am ay règles am. États-Unis am ay Angleterre am Afrique du Sud am ay règles ñu am suñu règles yoo xam ne ñun législateur moo ko def du dëgg nga xamante ne si dañu wax ñu dénk ko affaire askan. xaalis askan mel ni assemblée tàmbali na de waaw du daanelal foofu. Ah, ñu ñu jox ko affaire askan. daanelal foofu uh-huh. jékki-jékki ñu gis ko mu jënd bordure bi yëpp kër yëpp di dawal ay oto yoo xam ne ay milliards la jënd ay jet jënd ay bateau de luxe mais loi bi dafa ne jën lay laaj foo ko jëlee est-ce que nekkul ci narcotrafic di lay laaj foo ko jële bu ñu la laajee foo ko jëlee loi bi nee na bu fekkee mënoo ko prouver da daanu. boo ko bañee prouver da ngay daanu c'est ça la CREI maintenant nag. yow d'accord nga ci CREI quoi. man sur la charge de la preuve yooyu ma ci problème. ah kuñ fi président kuñ fi jàpp te mën la mënoo prouver say alal fu mu jógee doon noo ko xamuñ fu mu jege mais c'est clair et net que ça tombe sous le coup de la loi donc nag dindi CREI man di ko remplacer par un parquet financier parquet dépend de l'exécutif. dépend du ministre de la justice qui est politique. dépend du président de la république qui donne des instructions. super